Cheikh Mbow euh, ñu ngi lay nuyu. waaw ñu ngi leen di fay Ajaratu. Euh, euh, yow yaay directeur exécutif bu COSYDEP coalition des organisations en synergie pour la défense de l' éducation publique alors tey ci alxamis ji élèves yi ñu ngi composé ñi nga xam ne ñoo nekk ci classe CM2 CFEE entrée en sixième alors bu ñu xoolee modalité de passage en classe supérieure yi nga xam ne ministère bi teg na ko yow lan ngay xaar ci cëppaandawal examen bi ndax ñu bëri jàpp nañu ne bu ñu ci génnee daanaka niveau bi dina gën a bon ndax Covid bi ak euh, situation bi mu indi yëpp ci njàng mi. waa bu ñu leen santee gërëm leen ba pare dañu bëgg a tàmbalee wax boo ñu ko mayee mooy fàttali ni at bi at la bu doy waar at la boo xam ni wax dëgg yàlla fàttaliku ko ñu ko dundee ndax at boo xam ni am na benn mbir mu sew boo xam ni virus lañ ko tuddee Covid 19 ñëw bettuñu. ne lépp loo xam ni waxoon ngeen ko ci benn waxtu lay école ji tëj nan ngay defee sa examen benn baaxoon euh, donc loolu dafa nekk lu yéeme at la boo xam ni école bi fexe na ba fonctionner ci biir taw bi euh, mu nekk loo xam ne aussi lu lu waar la xam nga ne sax am na yeneen réew yoo xam ne mën nañoo fonctionner ci biir taw. Mm. waaye suñu réew Sénégal ni l'école yi bindoo ak abri provisoire yeeg même école yi nga xam ni dafa am tabax waaye dafay senn. Mm. ak jafe-jafe yi ngay am boo jógee sa kër ba egg ci école ba. Mm. école yi nga xam ne dafay inondé te loolu yëpp dafa évidemment dafa nekkoon ay jafe yoo xam ni euh, lu lu yéeme la Sénégal nag euh, lijjanti na après plusieurs tentatives que. lu tolloog genn wàllu million ci ay doomam yu doon def examen mu delloowaat leen ci classe yi lu leen fa delloo fekk na xale yooyu ñàkk ñetti weer donc tey ñu am benn weer ak genn wàll def ci def ci def ci njàngat eh, war a nag jublu nag ci examen yi tey comme ni nga ko waxee ñu tàmbali pour di leen souhaiter bonne chance ñaan borom bi eh, lépp lu ñu jàng mu mën cee feeñ xale yi nañ fa dem ak dëgër dem fa ak seen xel jàpp ni lépp loo xam ni ñoo ngi koy dund doomu yeneen rew aussi xëy na ñoo ngi dund lu xaw a mel eh, wante gis nañu aussi que ni euh, Sénégal ba léegi tontu bi war ci ñetti million doomam jo euh, mënu ko joxe. Mm. parce que xam nga ni euh, école bi du seulement classe d'examen yeneen classe dafa nekk classe yu am solo. Mm. ndax bu subaa ñoom bu ñu yeggee ca coppandal ga mooy examen dañuy soxla aussi ñu am xam-xam bi war bi leen war a permettre ñu mën ñu mën a ñu mën a ñu mën ci génn. Mm. donc ñetti million xale yooyu ba léegi toog nañ lu tollook juróom-ñaari weer te novembre lañ leen ne la ñu war a dellu si waat ci école bi. kon loolu dafa nekk suñu yitte koy continuer di ko di ko wax. leneen li nga xam ne aussi suñu yittale ci mbir mi mooy gis nañ ni ak situation bi ñu duggee ci ci delluwaat école bi am na ay beddeeki yu am ñenn ñi. Hmm. am na ñoo xam ni waxtu wi jàng gën naa néew seen i parce que simplement dañu nekk ci zone boo xam ni taw ba dafa gën a bëri ou bien euh, dañ leen jox ay jàngalekat yoo xam ni évidemment que euh, matul doyul hmm. donc yooyu yëpp mu nekk ay mbir yoo xam ni euh, mën nañ ko wax léegi nag examen bi ñuy def tey. Euh, jàng ci ñaan comme ni nga ko waxee xale yi génn seen jàmm wante li ci ëpp solo mooy ñu def ci jàngat ñu ci parce que li muy fi muy jëm ak ni mu war demee xam kenn mënu koo kenn mënu koo kenn mënu koo xam fi mu mm-hmm. li ñu mën a seetlu rek mooy benn euh, te mu nekk poñ boo xam ne poñ bu baax la mooy que ni euh, effectif yi nekk ci classe yi wàññeeku na ba nga xam ni benn jàngalekat ñaar fukk élève mm-hmm. dina mën a tax jàngalekat bi fiyee loxo xale bu ne gis ko kon mm-hmm. loolu nag mën naa tax waxtu wi ñu manqué sax euh, dispositif boobu mën na koo xaw a mën na koo xaw a dëgëral donc loolu mooy poñ bi nga xam ne baax na ci poñ bi nga xam ni pour ñun poñ bu la mooy que ni yëpp xam nañu am ay jàngalekat yu manqué ci yenn discipline hmm. yenn saa yi ñu jël ay yoo xam ni mosuñu leen préparé pour ñu yore classe d' ñu ñëw jox leen benn groupe élève hmm. donc loolu aussi mën na am ay jafe-jafe ci euh, résultats yi nga xam ne moom la ñu war a jëm hmm. konte daal fi ñu jëm euh, ñoo ngi koy seetlu Sénégal am na lu mu jëm mais li ëpp solo mooy li yëpp buñ ci génnee war nañoo mën a toog waxtaan suñu biir bu gis ja def jàngat ci nan lañu ñu gunge xale yi ci biir Covid bi. Hmm. yan euh, réflexion lu mën a la la mën a indi yan jafe-jafe moo ci am euh, loolu buñ ko defee incha allah rabbi jàpp nañ ne danañ mën a gis euh, jumtukaayu jàng bañ ñaata. est-ce que COSYDEP am na satisfaction ci ni ñu gérer mbir mi ndax euh, dégg nañu la ngay wax ne mënoon nañ ci gën a boole acteur yi acteurs yi nag euh, yaatu na euh, ndax kon dafa am ñoo xam ni xëy na gisuñu seen bopp ci doxalin wi. waaw xam nga ñun dañoo mës a gëm lenn mooy réew mi wala système éducatif amul benn kenn kese ku mën a am tonton il faut ñuy ubbeeku yaatu ak oyof gouvernement lu mu am am doole. bu liggéeyee te waxtaanul la jàngalekat yi du jariñ dara ñooñu lu ñu am doole buñ ci dugalul waajur du jariñ dara donc nan la ñu mën a fexee ba lépp lu ñuy def ñu koy tabaxandoo surtout nag bu dee situation boo xam ne daf ñoo bett hmm. muy situation boo xam ne kenn jàng ko kenn jàng ko ci école ba kenn jàng ko ci université donc loolu solution bi li ñu mooy solution bi day jóge rek ci ubbeeku ubbeeku nag mooy ubbeeku ci jàngalekat yi nga xam dañu yore cré nekk ci classe ubbeeku ci jàngalekat yi à la ci yeneen corps yi mooy sociologue yi psychologue yi anthropologue yi ubbeeku ci sénégalais même de l'extérieur parce que am na fee sénégalais yu nekk ci réew yoo xam ni très souvent ah dafay nekk ay réew yoo xam day bëri jaxasoo day bëri ay jafe-jafe ba yenn saa yi ñu tëj seen école mm-hmm. ah, ñooñu ni ñu indee tontu yi ñuy indi ñun mën nañoo inspiré mm-hmm. donc pour ñun loolu dafa dafa nekk biir en terme de de de gouvernance du système bu ñu nekkee en situation de crise euh, loolu nag wax dëgg yàlla euh, war nañ cee war nañ ci gën a boobu ñun consulté nañ ñu ah, ci dispositif bi yëpp ak ministère de l'éducation chaque fois ñun aussi lépp lu ñuy def mooy bu ñu gisee góom bi duñ ci yem. Hmm. dañ koy gunge ak ay proposition hmm. maintenant propositions yi ñu def nag après ministère moom moo am pouvoiru décider yenn saa yi mu décider loo xam ne duñ ci ànd euh, mais buñ ci àndul euh, dañuy jàpp ni évidemment euh, fi ñu toll kenn amul dëgg. kenn mënul wax ni lii moom mooy yoon bi nga xam ni mooy yoon bi gën. Hmm. donc ku nekk da ngay def sa kéemtulaay kattan def li nga yaakaar ni moom mooy li gën donc bu ko defee buñ ci àndul it danañ loolu nga xam ne moom la gouvernement bi euh, mujj tënk donc est-ce que est-ce que gouvernement bi bàyyi na xel justement proposition yi ngeen defoon jëm ci euh, ni ñuy gérer secteur bi ak euh, mbas mi fukk proposition ak juróom yoo xam ne tegoon nañ ko si ay préalable condition bon booy seet ba bu ñuy wax tamit suñu ak lay taala xam nañ ni ministère de l'éducation moom am na déglu boo xam ni jox nañu ko ba nga xam ni lépp loo xam ni moo koy def danañu laaj suñu xalaat dana am aussi yu mu ci jël évidemment ku du jël lépp par exemple boo jëlee ci Euh, loolu ñu tuddee woon kañ la ñu war a delluwaat ci l'école bi bi ñu ratee 2 juin ñu leen ne woon nañu bàyyi ci bañ a jax jéem a dugaat ci école bi le 25 juin parce que booba mbirum ndox mi mbirum taw bi dafa nekk ñun loo xam ne dañoo tiitaloon yëtteel ñu parce que ñun dañoo gëm équité. Mm-hmm. dañoo gëm ni jàngat jàngale li ci ëpp solo mooy fexe ba. ñoom ñëpp ñoo am même chance. Mm-hmm. que ñu mën a gunge noonu ñoom moo tax ñu waxoon benn septembre. Euh, boo jëlee ci formule de passage yi ñun dañ formule boo xam ne dañuy ñëw joxe ay moyens jëlee ko ci kaw ministère euh, wax ko ñu nekk ci suuf mooy école yeeg académie hmm. ñun mosuñu ko gëm hmm. dañoo jàpp ni euh, bu waree am formule de passage ñi nga xam ne ñoo nekk ci ko goxaan yi ñoom ñoo war a xool en fonction de la euh, situation locale yi ñuy dund yan proposition lañ mën def hmm. donc am na yoo xam ni euh, ministère tënku na ko arbitré na ko ñu ànd ci am na yu bëri yoo xam ne aussi wax nañ ko ànduñu ci mais dans tous les cas ñun li ñuy wax suñu équipe mooy lu mën ci demee mooy il faut ku nekk aussi xam sa bopp gouvernement moom mooy décider bu ñun daal balaa muy décider danañ ko wax ak fulla mm-hmm. wax ko ci gëstu lan mooy suñu gis-gis mm-hmm. bu xasee ba décider nag décider mooy bi jàpp lu ñu mën ba nga xam ne décision bi parce que li koy def mm-hmm. doo ko def pour gouvernement doo ko def pour ministre danga ko def pour xale yi parce que suñuy doom bu subaa dañuy jàkkaarloog doom yi ci Mali doom yi ci Côte d'Ivoire doom yi ci France doom yi ci États-Unis te ñoom ñëpp seen ñoo ngi dundu Covid bi te il faut pas que suñu doom euh, nekk ci daara bi wala ñu am ay jafe-jafe donc système éducatif moom li ko li ko mën a doxal situation yi mel noonu mooy ngay déglu ñëpp mais ensuite nga mën a euh, déglu aussi jafe-jafe yi la Covid bi wax sa système parce que suñu système euh, bëri na loo xam ne Covid day nañu ko. Hmm. est que am nañ dégg bi nag parce que nee nañ euh, Covid bi nee ñu il faut que école yi classes yi mën a mën a yem boo nekkee da am système boo xam ni boobu ba léegi benn enseignant pour lu tolloo téeméer élèves. Hmm. kon nag war nañoo xalaataat ci nan la ñu mën a fexe ba recruter ay jàngalekat yu doy. Eh, ba nga xam ni dana a à ces normes là Covid bi nee nañu dañoo war a set fekkee ni amul ndox. Mhm. kon nag suñu école yi war nañu góorgóorlu ba ñu am ndox. Covid bi si biir set gi eh, école mënta set bu fekkee ni amuloo ay ay gànnuwaay. parce que xale bu duggee ci école de huit heures à dix sept heures mais eh, par force dana soxla gànnuwaay. Mhm. gànnuwaay yu set donc yooy ay jafe-jafe la école mënta avancer jàkkaarloog jafe-jafe yi nga xam ne moom la ñu la ñu dund Covid bi te tëjuwul. te te te amul sécurité. Mhm. ah boobaa évidemment euh, lu ne mën mën nañu seddal donc. te jafe-jafe yi mi ngi gën a fësee ci école publique bi. Ah, te loolu nag wax dëgg yàlla bu ñuy waxee euh, suñu suñuy waxee te dëgg rek tax. Mhm. mooy école publique mooy bi dund ndax ci école publique ngay gis abri provisoire. Mhm. ci mooy ñàkk ndox moo am toilette ci école publique bi moom mooy école bi nga xam ni évidemment que euh, du am clôture mooy école bi nga xam ni moom mooy fees dell ak ay moom mooy école bi nga xam ni donc école publique bi. mooy école bi nga xam ni euh, même bu école ubbee du jot xaalis bi nga xam ne moom war a fonctionner dana ko yéex a jot loolu te bu ko jotee sax léegi dañ ko wàññi wàññi bu am solo. Mm. ba nga xam ne man sax euh, dañuy obligé di solliciter waajur yi pour ñu euh, mm-hmm. donc yooyu yëpp ay jafe la yi nga xam ne ci école bi jàpp ni ñu nekkee am nañ dégg-dégg ci Covid war nañoo gën a fullaal école ndax suñu réew yi nga xam ne dañ koy tabax wax dëgg yàlla bu ñu amul école publique yu dëgër danañ beddi askan bu bëri mm. li ëpp suñuy doom ñoo ngi ci ay famille yoo xam ne ay famille yoo xam ni yu modeste lañ mm. bu nekkee ni école publique bi melul ni mu war a mel soit danañ génne seen i doom mm. wala bu ñu wala wax dañ leen sax bàyyi ñu jàng ci mm-hmm. donc tey jii war nañoo am beneen fulla ak beneen taxaw bu ñu war a am ci école publique bu fekkee dañoo gëm ni euh, école mën naa nekk régulateur social bu fekkee dañoo gëm ni école dafa war a nekk foo xam ni nit mën na faa jaaree pour tekki mën na faa jaaree pour situation pour changer de situation mais mën na faa jaare aussi pour gën a mën a nekk euh, citoyen boo amal njariñ boo amal njariñ bi donc daal jàpp nañu daal Covid bi fàttali nañu loolu et donc ñun ñëpp war nañ cee góorgóorlu parce que cool yi yi mooy bu ñuy wax école euh, dañuy seet nan la ñu mën a fexe ba doomu ñëpp du ñu bedd kenn muy góor muy jigéen ki am handicap ki amul ki am xaalis ak ki amul xaalis ñoom ñëpp ñu mën a jouir bénéficier d'une éducation de qualité mm-hmm. te fi ñu toll ni ni mbir mi tëggoo dafa mel ne bu ñu deful ndànk doomu ñi amul wax dëgg yàlla da ciy gën di ndóol doomu ñi am gën nekk seen kaw. Hmm. te loolu ki ko war a réguler ki ko war a toppatoo ki ko a lijjanti mooy gouvernement kon nag ñoo ngi ñaan gouvernement du Sénégal mu gën a école publique yi répondre aux normes standards loolu mooy mën a wane mooy mën a tax ba am bu subaa yeneen kilifa tey ñaata kilifa nga am yoo xam dañ naan la école publique laa jaar. donc ñooñu bu fi woon école publique xëy na duñ doon liñ doon. président de la république moo ci jiitu. président de la république da koy wax ne moom mm. famille bu modeste la jógee mm. donc bu doon école bu nekkoon dafa tombé école boo xam ne euh, amul qualité ci école publique bi mm. wala dañ koy laaj xaalis bu bëri pour mu mën a pour mu mën a jàng xëy na du am xam-xam bu mu am xëy na du nekk li mu doon xëy na du am li mu am donc tey ji war nañoo am beneen fulla ak beneen taxawaay bu ñuy amalee école publique yi parce que wax dëgg yàlla éducation droit la te kii wax ni moo koy garantir mooy nguur mooy nguur gi te booy jàppale booy jàppale secteur da ngay jàppale ñu gën a la république bi mu nee dafay jël ay vivre jox ko famille yi jox ko famille yëpp mm. dafa jël famille yi gën a ndóol yi gën a am jafe-jafe jom la ko mm. jox te itam boo leen da ngay jàppale école bi école particulièrement école yi gën a sonn yi gën a am ay jafe-jafe ñooñu nga war a gën a jox attention alors rapidement ñu wax ci rentrée bi nga xam ne jàpp nañu ko novembre septembre pour université yi donc euh, ay fan yu néew moo ci des euh, COSYDEP euh, lan lay xelal kilifa yi ngir xëy nañu am rentrée bu jaar yoon waaw rentrée la boo xam ne buñ ci jógul dès à mën mën na jaxasoo ndax boo bëggee indi ñeenti million gu xale ci biir école bi ak si ni école bi bindoo mooy boobaa da nga o waat abri yi danga nga amaat encore ay classes yu fees euh, te problème mu ndox mi gisuñu ba léegi ñu am ci tontu problème mu toilette yi ba léegi bu mu fi tegu kon nag dafa nekk lu ñu war a waxtaan pour ñun lépp loo xam ne war nañ ko mën a war a digle hmm. pour rentrée wu novembre bi mooy ñu tàmbali dès à présent toog sekk ko waxtaanee ko waxtaan ci juboo lan la xale yi warul ñàkk mënuñoo ñàkk xam mooy protocole pédagogique hmm. parce que dans tous les cas waxtu wi ñu war a jàng déwén dana néew par rapport ak wax ak temps a jàng. Mm-hmm. donc muy benn waxtaan ci mbirum protocole sanitaire bi. Mm-hmm. naka lay docteur waa kër docteur yi ban gis-gis ak ban xam-xam la ñu war a mën a teg. Mm-hmm. parce que ñëpp xam nañ ni Covid bi du fi joge fii ak novembre. kon nag naka la ñu war a def ak mbir moomu euh, mbir la boo xam ne pour ñun euh, war nañ cee war nañ cee mën a waxtaan dès à présent waxtaan euh, aussi ci lépp loo xam ni jëm na ci. Euh, par rapport ak euh, bilan bi parce que euh, xam nañ ni amoon na ay amoon na ay jéem yoo xam ne askan bi def nañ ko xale yi ci biir jéem yooyu il ñu natt ko pour xam lan la indi ci lu baax ak lan la indi ci manquement ak yan xale ñoo ci jot yan xale ñoo ci jotu donc il faut ñu évaluer ko waxtaan ci personnel enseignant yi ñun daaw ak daaw jéeg fan ñu dégg nañ ni bu baax ñuy fàttali ministère de l'éducation que ni jàngalekat yi nga xam ne ñoom la ñu tàggat war nañoo fexe. ba ñuy disponible ci bu école bu ubbee lu ci ëpp suñu réew jàngalekat yi dañ leen di tàggat waaye ñoo ngi disponible en janvier février donc maanaam ñetti weer yoo xam ni jàngalekat kenn du leen mu diggee woon nag moom ministère de l' éducation que ni ren moom incha allah dana ko def laajaat nañ ko nag ne ko ndax ba Covid bi malgré Covid bi ndax loolu dana am nee nañu waaw kon nag ñoo ngi xaar que jàngalekat yi ñu formé ñu am dispositif bi tax ba ñoom ñu mën a disponible pare ba nga xam ni bu école bu ubbee dana mën a ànd ak xale euh, loolu pour ñun aussi. Hmm. poñ la boo xam ne am na solo. li ci ëpp solo daal ci eh, at bi ñuy waaj a dem mooy novembre. Mm-hmm. mooy ubbi waxtaan bi te bañ a bàyyi nag def jikko Sénégalais yooyu nga xam ne dañu toog bañ na suba la ñu doog a ubbi mm-hmm. waxtaanee ko léegi ci xuloo ñu xuloo léegi ba juboo ci la ñuy juboo léegi mën na teg nag ay solution yoo xam ne mooy tax ba suñuy doom sans bedd kenn ñoom ñëpp danañ am chance su dund année prochaine année boo xam ne correct mm-hmm. beneen bi mujj ci année année prochaine mooy amuñu droit perdre benn kese wax kon nag loolu bu ñu bëggee dem nag. il faut mën a anticiper ci lépp loo xam ne mën nañoo ñàkkloo benn waxtu mm-hmm. et notamment euh, diggante jàngalekat yi ak gouvernement bi pour ñun il est essentiel que gouvernement bi ak jàngalekat yi tàpp ubbiwaat waxtaan dès à présent ci seen i accord ba nga xam ne déwén incha allah dafay nekk mm-hmm. euh, at boo xam ni dafay ok at novembre dafay nekk at boo xam ni at bu ànd dal mm-hmm. at bu ànd ak dal parce que sinon évidemment que dana indi ay jafe-jafe. jërëjëf Cheikh Mbow ñu ngi lay gërëm bu baax amoon mbégte dalal la ci matinalu réew mi FM tey fàttali ne yow yaay directeur exécutif bu COSYDEP di coalition des organisations en synergie pour la défense de l' éducation publique jërëjëf. man maa lay